kilifa diine yi nekk dende yi mer nañu wàcc ci terrain bi fësal ko ne nag amatuñu masla li nu bëgg mooy nguur gi fale seen gox bi ñu jàpp ni Serigne Touba ma joxoon ndigal ñu sànc ko waaye nag gis nañu ni dañ ñàkk fullaal ñàkk leen faydaal kenn falewu leen te sax ñu ni yi fu mujj am si ay infrastructure jamonoy Abdou Diouf la woon loolee waral nag ñu ni élection yii nu jëm bu nu goudronewul seen talib bi jóge daaru xufuur ñëw ci gox bi élection du am ci dende yi Serigne Mamor Mbacke moo njëkk yëkkati kàddu. suba suba lañ bëgg suba suba lañ bëgg télé bi ñu tàmbali ko suñ ko tàmbali woon bureau de vote du fi am duñ fi woote parce que moom suñuy carte ay taalibe la ñoo dox waaye président la ñu ngi koy ñu message boo xam ne bu ñu ko deful télé bi suba suba ñu andi gadron bi ñu tàmbali ko woote du fi am kilifa yi gën ñëpp benn kàddu bi la tali lañu bëgg ndox mu sell ak courant ak sécurité ñëpp amuñu courant amuñu ndox mu doy forage bi dafa manqué cette doo li fi desit mooy li nga xam ne si mooy dëkk village yi nga xam ne si moom la dende ëmb ñëpp maanaam dañoo manqué li nga xam ne si moo di maanaam dëkkuwaay yu baax muy si ak courant ndax dafa lëndëm beneen bis si mooy si wax li nga xam ne si si wàllu euh, maanaam euh, wér gi yaram wi sax boo bëggee diggante dëkk bi ak dëkk bi yoon yu baax sax mënoo koo am ndax maanaam métti woo xam ne si dund nañ ko si dëkk bi. bi président amee li mu bëgg nag mel ni dafa fàtte sëriñ bi. ci bëgg bëgg mboobu fàtte waa Dendey loolu nag metti njaboot gi euh, fees dell seen xol ba tax bu bu yàgg ba léegi ñu am ay réaction yoo xam ne bëgg nañ ko feeñal waaye waxtu wuñ jógee ñu nëpp nëppal leen tey jii li nga xam ne bëggoon na fi teew ci mbooloo kenn xamu nu toll ñoo leen jox ndigal ni leen wàññiku leen seen i kër dañuy joxe message bu jëm ci président loolee waral soxna laa Mbacke di sët si kër gi moom i dellu si ni au vingt et unième bi ñu nekk kat village amatul yëpp ñoo war a ànd bokk dañuy téye sur 4 kilomètres parce que on kenn mësula gis yu nekk ci vingt et unième la nga xamante ni sax nag yii amatul fenn waaye dëkk bi moom dafa mel na ni daal téeméeri at ci ginnaaw ba léegi lay dund amuñu courant amuñu ndox amuñu dara ñu fàtte ñu te nag loolu dafay war a jeex moo waral njaboot bi yépp jóg ngir na xeex. lu mel te jàpp nañu ni dañ koy yellool ay kilifa ñoo fi dëkk ak population bi nga xamante ni ñoom ak ñëpp daal ñoo yem si réew mi ndax ay citoyen lañu te les citoyens def ñoom ñu ngi def lu nu mel. il faut qu'il réalise ce qu'il nous avait promis. waaye nag gën a xuus si wax ji ki nga xamante ni mooy sëñ Mamor Mbacke jàpp na ni Touba daanaka de moo xañ lu bari seen gox bii mu nag jàpp ni yenn si ay kilifa ñoom ñoo tax daal ba luñ fa war a def rek du fa am si ay kàddoom. indi na nag am na benn ma lobby marabout boo xam ne dañoo nekk Touba yoo xam ne lu bëgg a ñëw ci dëkk bi dafa mel ne dañ koy détourné yóbbu ko Touba te Touba sëñ Touba moo wax jox sëñ mënu mel ne ko na sañ ci dende yi ak liggéey ak jaamu yàlla te lépp loo xam ne Touba am na ko ci lu baax damaa jàpp ne nag diine daf ko war a am ndax diine mérité woon na ko li am daaru mën naan am daaru musi am am guy mbind am Mbàkke Kajoor war naa mën a am déedéey Touba roof tali ba la ñu fa barki dem fii moo ko gën a mérité woo kon nag Cheikh Modou Xaban liggéey la ko jar ñu bëgg président la République bu fekkee li muy def ñor na dé ñor na askan wi ñor na yoonu murit na ci boole déndey ndax déndey la ñu bëgg déndey di dëkku sëriñ Ahmadou Ndoumbé Xaban mi sëriñ Touba joxoon ndigal mu sanc ko waaye nag tey ji génn nañu si terrain bi donte sax ñu ngi ko bëggoon defe si mbedd mi waaye si la takk deri ñëw nag nii amul autorisation du fi amee ba ma waral kilifa yi topp leen si loolu dem defee ñaxtu bu ni mel seen biir kër